salaamaaleykum ami internet univers info tv yi ñu safoo di ñu seytaan nuyu nañ leen bu baax a baax di leen ziar di leen jaajëfal ak fépp fooy na nekk ci àdduna bi rek ku ci nekk fekk nañ la fa nga toog di ñaan yàlla suñu borom daal di def a jàmm ci réew mi def ko fii ci Sénégal ci dara kii ku tedd ki di Seydina Mouhamed sallallahu alayhi wa sallam tey nag dañoo daal di seet si suñu papa suñu xarit l'international bi sax laa koy wax suñu artiste comédien bi di acteur comédien macha allah. muy père Moli euh, di euh, tonton Sène su ko defee rek dañ koy bàyyi ñu daal di nuyoo tonton Sène ñu ngi lay nuyu bu baax. Euh, maa ngi lay fay Badiane Badiane nationale ah c'est ça. Mm-hmm. waaw maa ngi lay bëggee manit bon di la wax dalal fii ci grande Dakar ci kër Mody Fall alias tonton Sène mm-hmm. <laughs> alias monsieur Ndiaye. waaw monsieur Ndiaye man laa xam mais aussi alias Baye Magone ah. voilà dans la Euh, Baye Mangoni li nga xam ne koy tourner actuellement ci Sen TV bi mhm. ma ciy wooye également Sugar Daddy donc je fais un coucou à mes fans qui m'appellent <laughs> Sugar Daddy <laughs> di leen bëggee bu baax euh, di wax ne eh kontaan ci Univers Info mhm. n'est-ce pas ne leen dal leen jàmm ci fii ci kër Mody Fall di chef de quartier à Grand Dakar mhm. donc euh, voilà di leen déglu macha allah man xam parce que bi may nekk xale <laughs> monsieur Ndiaye lañ doon seetaan dama naan sama yaay dañ doon takki télé bi ah la collégienne waaw waaw la collégienne. waaw mu nekk série boo xam ne ba tey macha allah nee naa ko série boobu du fay du xewi. Mm-hmm. parce que dafa jàngale lu bari. Mm-hmm. nga def ci rôle bu am solo. waaw ñuy ñaan yàlla musal la ci cat aussi. voilà yow mi nga xamante ne nii euh, dama naan jàng théâtre def ngeen cinéma am ci ay diplôme tey macha allah ba fu ngeen taxaw dañ naan euh, ñoo ngi ne tey ñu bëggoon a xam quelle la différence entre cinéma. cinéma ak théâtre. Ah, waaw différence bi entre cinéma ak théâtre mooy euh, cinéma. Mm dañu koy filmer. Mm -hmm. nekk na loo xam ne boo koy liggéey boo juumee et mën nañ koo di am defaat. Mhm. donc euh, maanaam mën nañ ni ci liggéey moo gën a yomb. ah être un acteur de cinéma donc euh, yow mën ngaa juum ñu gàgganti la ba pare filmer waat ko. Mhm. waaye li ngay def itam dafa am ci anam yoo koy defee. Euh, cinéma mën nga mën ngay yi sax ñu dégg sa yi waaye itam cinéma bu ñu la cadré ne la bul bouger trop bul yëngatu parce que caméra bi euh, gros plan lay def. Mhm. donc da wax sans pour autant trop te déplacer. Mhm. mais cinéma aussi soxlawuloo def benn effort euh, vocal bi. Mhm. parce que ni nga waxee rek eh, dinañ la ko déggee. donc euh, techniquement dafa nekk loo xam ne da lay yombalal liggéey bi. par rapport ak théâtre bi nga xam ne eh, boo nekkee dans une grande salle de théâtre nit ñi nekk à cent deux cent mètres voire même plus da war a def effort vocal ba yow li ngay wax ñu dégg ko de loin euh, te gestuelle yi ngay def aussi contrairement ak cinéma nga xam ne dañ lay cadré waroo génn ci cadre bi bon tu peux faire des gestes larges tu peux aussi parler pour que ta voix porte très loin donc te itam amuloo droit corrigé wu théâtre sur scène nit ñi bu ñu ñëwee ba toog di la seetaan moom da ngay tari rek. Hmm. <laughs> amul gag voilà doo gag. parce que li ngay def da koy def c'est à chaud c'est en face du public donc mën nañ ne euh, théâtre moo moo gën a jafe cinéma te boo ci jaaree pour nga def cinéma euh, day gën a woyof ci yow day gën a yomb ci yow donc loolu la ñu mën a note comme différence. kon différence boobu moo am si acteur ak artiste. Hmm, hmm. waaw waaw artiste comédien ak acteur différence boobu moo si am. voilà comédien ak acteur loolu mooy différence bi maanaam liggéey bokkul. donte ne ñoo xaw a niroo waaye benn bi ci ngay gën a def effort maanaam ci sa wàllu gestuel ci sa wàllu euh, fexe ba sa kàddu àgg fu sori euh, ci ni nga koy waxee donc da ngay def ay pincement de voix yoo xam ne ñoo lay mën a permettre sa voix porter très loin. benn boobu ban la théâtre la. Euh, maanaam da ngay da ngay da am ay registre xam nga xam nga kàddu mën nga ko wax ndànk comme mën nga ko waxee noo xam ne aussi sa baat day egg fu sori donc loolu la théâtre di laaj. il faut que sa voix mu mën a porter très loin. pour loolu nag il faut nga liggéey liggéey liggéey sa baat euh, ba nga xam ne mën nga wax sa kàddu sori parce que ni nga koy waxee la te itam dañ lay jàngal aussi respirer avec la voix parce que nit mën nga wax lu yàgg euh, te te doo doo fat mm-hmm. loolu liggéey ci wàllu dégg maam donc euh, diction moom moo la koy may. Mm-hmm. nga xam aussi sa baat registre yi nga ko mën a def. parce que nit mën nga waxee dënn mën nga waxee biir mën nga waxee bakken voilà xam nga léeg nga gis ay nit yuy wax nga naan kii dafa nos. Mhm. maanaam moom dafa am naturellement euh, donc euh, cette faculté là de parler avec le nez. voilà am nit yoo xam ne bu ñuy wax da ngay gis seen baat dafay diis waaw diisaay googu nag daf lay yóbbu ci registre vocal boobu nga xam ne ñenn ñi dañ naan ils ont la voix rauque. Mhm. parce que seen registre vocal peut-être mën na am naturellement day am mu jóge ci seen dënn. bi jóge ci biir nag boobu la plupart woykat yi sax ñoom moom la ñuy utiliser. Mhm. registre boobu ñoom dañ leen di yar tàggat leen ci seen kàddu di jóge ci biir bi. Mhm. nga xam ne buy génn dafay dafay dafay dafay am puissance donte ne sax nekkul lu diis ci kàddu waaye dafay am puissance day porter très loin. Mhm. soo xoolee woykat yi bu ñuy xaaju boo làmbee seen biir da ngay gis biir bi day concentré wu parce que foofu la yuux bi di jóge voilà donc ñetti registre yooyu moo am registre bu bakkan maanaam nasal registre donc euh, au niveau donc de la de poitrine mhm. ak bi nga xam ne registre bi ci biir la jógee mais boobu moo gën a sori moo gën a am doole moo gën a puissant mhm. parce que pour jox la benn exemple par exemple euh, xam nga le les asiatiques mhm. am na lu ñuy wax kiyaay mooy benn yuuxu boo xam ne boo ko defee Euh, da ngay da ngay dem ba da ngay fàtt nopp nit ki parce que yuux bi day am doole day am puissance. Mm-hmm. Euh, te dañuy wax ne ñoom sax dinañ ko liggéey ba bu ñu defee seen kiyaay boobu léeg mën nañ ko def janoo ak loo xam ne ver la verre bi toj. Mm-hmm. donc euh, loolu yëpp ay ay ay ay maanaam mënin la yoo xam ne dafa nekk ci doomu aadama yi mais dañ koy liggéey nag dañ koy liggéey ba am foo ci toll. macha allah waaw mais ñun en tant que acteur comédien. ñi nga xam ne def nañu la formation académique à l'école des arts mhm. donc euh, liggéey nañu ci wàllu diction loo xam ne yooyu dañ koy xam dañ koy comprendre mhm. tu vois te itam même chanteurs yi ñoom dañ koy def aussi d'accord parce que léeg-léeg nga gis woykat muy def ay variation vocale yoo xam ne léeg-léeg baatam sew léeg-léeg baat bi dijji ah léeg-léeg ñuy jàng la voilà diggu dóomu léeg-léeg mhm. baat bi aussi am puissance voilà yooyu yëpp dañ koy jëlee nag soit ci sa bakkan soit ci sa da nga am dënn wala nga jëlee ko aussi ci sa biir. d' accord d' accord monsieur euh, comme li nga wax mu mel ne euh, loo jàngul rek doo ko tari. Euh, def nga cinéma comme li nga wax am nga ci ay diplôme macha allah bi nga commencé def théâtre ban âge nga commencé def nga ko jàng. bon man nag bi ma koy commencé presque tout tànk laa woon ah donc je l'ai commencé à l'âge de 12 ans. 12 ans laa commencé def théâtre mm-hmm. boobu mën naa ne Sénégal amagul woon télévision. yàgg na ma ah ma commencé d'abord par le théâtre radiophonique euh, parce que ay circonstances ñoo am amené woon à ce que troupe bi doon répété suñu kër fii ci grande Dakar tu doon troupe Jubo te Omar Aw yore woon ko yàlla na suuf sedd ci koom. dem si yàlla Omar Aw mu nekkoon ku ci amoon xam-xam nag. waaw xam mag màjjoon trop ci théâtre mu yore woon ñu ñuy def ay théâtre de scène di def ay danse parce que man jaar naa ci danse traditionnelle moderne ak moom euh, mais aussi def euh, art dramatique. c'est-à-dire le théâtre de scène. Mhm. voilà bi ñu tolloo ci def théâtre radiophonique également euh, ñuy def ay production yu bari boobu defe naa ñi ngi ko doon def ci jamono bi nga xam ne ci la Mokhoro Diegay. ndeysaan euh, euh, ak ak ak Alaaji Mor voilà Alaaji Mor ak Mokhoro Diegay ñoom ñoo njëkkoon tàmbale série théâtre radiophonique. Mhm. sénégalaise bi ñu demee ba série boobu jeex après troupe ji woo nag ñoom ñu reprendre daal théâtre radiophonique bi. donc doon ko def euh, a niveau de l'ORTS parce que boobu nekkuloon RTS c'était mhm. l'ORTS fii ci kër gi lañu daan ñëw di ko enregistrer mhm. euh, donc ñu ciy def ay théâtre comme ñuy def euh, RFI ah théâtre yoo xam ne wax dëgg yàlla dañ ko daan enregistré mu mel ni looy seetaan. d'accord lan moo la ci dugal ba nga def ba nga sa xel ne man mii dama bëgg a nekk artiste comédien yëkkatil micro bu baax. bon li ma ci dugal. Mhm. mooy eh, dama nekkoon ci kër gi boo xam ne comme ni ma la ko am troupe bu fi doon répété. ma nekkoon xale e ñoom ñu doon soxla léeg-léeg xale ci seen pièces yi ci lañ ma jëlee et man tamit comme dama yàggoon di seetaan répétition yi bi ñu ma jëlee rek ma ñëw rek daal di bokk. voilà ñëw jël le train en marche vraiment euh, nit ñi boobu nag théâtre radiophonique bi dañ ko doon seetaan comme ni ñuy seetaanee théâtre mardi yi bu xasee ba am kenn ñëpp dañuy tafu ci rajo yi di déglu. vraiment ñu koy dund nag mu nekk théâtre boo xam ne vraiment ak bruitage yi nga xam ne bu ñu nekkee ci mbedd day am bruitage yu mbedd. bu ñu nekkee da am feneen dañuy def bruitage naturel bi bu ñuy tourner sax géej da ngay gis bruit de vague yi day jàll bu ñu nekkee aussi di tourner ci mbedd dangay gis ne oto yi da ngay gis riir yi di jàll nit ñi di jàll les pas bu ñu nekkee ci oto aussi di nga gis bruitage ak ambiance su oto donc vraiment c' était un théâtre quand même boobu yaa ngi euh, doon jàng école wala. waaw waaw dama doon jàng parallèlement nag bon di def théâtre bi su jàng jotee ma dem jàngi su ma fi jógee ñëw répété. bon yombul woon mais euh, quand même j'ai arrivé à allier les deux. est ce que say parents bàyyi woon nañ la ngay boole ñaari yëpp. parce que parents yi en général dañ naan jàng avant tout. waaw waaw man sama parents yi nag amu ma problème ak ñoom si côté boobu dans la mesure où troupe bi suñu kër la nekkoon donc euh, def ci ak sotti ci la ko voilà man sama papa daf leen nekkoon seen disons seen mécène. daan daan jàppale troupe bi moom c' était pas un artiste mais c' était Mm-hmm. Eh, jamono boobu dafa nekkoon responsable politique donc daan jàppale troupe bi vraiment ci wàllu koom-koom may leen aussi espace mm-hmm. eh, abal leen kër gi eh, ñu fi répété vraiment di def ay prestation yu am succès nag parce que dañ daan dem sax ba Mbour théâtre déggal fi ñu doon wax hôtel Aljana à Mbour ay allemand moomoon ko dañ daan dem ba foofu am ak ñoom benn contrat boo xam ne pendant des années hein. Mm-hmm. donc on na là-bas régulièrement chaque mois daan nañ fa dem deux fois def ay spectacle de scène mm-hmm. yoo xam ne day am ay ballet ay danse mais aussi de l'art dramatique vraiment te tubaab bi bëggoon nañ ko nag parce que ñoom mm-hmm. xam dañu mos a bëgg culture euh, africaine d'accord a côté ñuy def le théâtre radiophonique aussi mais di def ay prestation ak ay spectacle n'est-ce pas à travers euh, la région de Dakar et à Sénégal aussi. xam nga jàng dafa fiir loolu moo tax ma lay laaj après est-ce que sa jàng continuer nga ko wala da nga mujjee topp théâtre bi kese bàyyi jàng bi. c'est vrai c'est que euh, bi ma demee nag ba à la fin de mes études secondaires boobu succès bi di gën a ñëw nit ñi di ma gën a xam fekk télévision ubbi aussi ah donc euh, théâtre bi dem et théâtre ci boobu moo fiir kenn mënu ko booleeg leneen donc j'ai fini par être donc vraiment. submergé par la vie théâtrale et le succès mm-hmm. <laughs> mais quand yàlla dimbal na ma boobu eh, fekkoon na ma dégg tubaab quand même man ko bind mm-hmm. eh, amoon itam euh, position boo xam ne pièces yi ñu daan def man maa daan bind découpage yi euh, donc maanaam tàmbalee dugg ci métier scénariste voilà ak découpage donc euh, de scénario Mm-hmm. Euh, donc loolu moom lu ma yàgg di def la moo tax d'ailleurs très tôt j'ai commencé à écrire mm-hmm. des, des de théâtre mm-hmm. comme Faatu jigéen bu ñuul Faatu la bonne particulière eh, man maa ko bind avant boobu sax bindoon naa benn pièce bu ñu doon wax Goredi Goredi bind aussi une série de sketch macha euh, yu daan génn ci Loisir Dimanche émission Omar Dia Mm-hmm. Eh, à ki je rends un grand hommage aussi Omar Dia ak Loisir dimanche bi vraiment émission bu amoon succès Sénégal. bokk naa ci aussi ñi ko ñi ko gën a suuxat parce que dama amoon ay sketch yu ñu daan woowee Tubaab Fall. ma mm-hmm. daan ko joué vraiment mu intéressé woon trop public bi. macha allah voilà donc c' est un peu. d' accord d' accord pas en tant que acteur en tant que comédien. en tant que scénariste. macha allah en tant que metteur en scène également. Mhm. voilà nga gisee théâtre démb ak tey parce que ñu bari nee nañ dafa mel ne théâtre dafa commencé di changer wala mu jaxasoo wala kenn xàmmeetu ko parce que affaire yu yaa ma neex bari na ci série yi. jëlatuñu ñi mën la majeure partie dañuy dem xool benn bàjjen benn amaat benn fa ñu ne ah kii daf ñu neex mun nañ ko dugal fii par rapport ak suñu leen tegee caméra de fois ñu wan caméra bi doo des fois seen diction dafay xaw a santuloo noo ko gisee. waaw mais xam nga loolu yëpp lu ko waral mooy ñàkk jàng rek parce que xam nga jàngul tari amul fen nit ki moom li nga xam ne e da nga cee bëgg a sori sa xel màjj ci nga mokkal ko da koy jàng parce que wolof yi dañuy wax ne loo doon taalibeem doo doon sëriñam mm-hmm. te xam nga léegi nit ñi dañuy bëgg théâtre nii rek bëgg ko rek bëgg ci sóobu mm-hmm. alors que métier la est c'est un métier très noble un métier difficile un métier qui demande également beaucoup de savoir-faire loolu nag e boo bëgg ci bëggee am tolluwaay bu kawe da nga koy jàng parce que man maa ngi nii donte ne jaar naa ci keppaaru mag ñi nga xam ne e ñu mel ni Ablaye Seck mi créé jamonoy tey eh, au côté de Abou Camara ñoom Alaaji Mor Dembi ñoom Malick Ndiaye Fara Thiel Thiel Lamine Ndiaye Lamine mhm. Ndiaye Mamadou Diak ñoom euh, Ndeyami Fall xëy di ma kunta pour ne citer que ceux-là mhm. malgré que dama jaar ci seen keppaar ba mu wóor ma ne man maîtriser naa théâtre de scène mhm. mën naa ci def lu ma neex et puis avec facilité mhm. mais dama ne ah métier bi de bëgg naa ci àgg foo xam ne moo gën a sori loolu nag moom muy yóbbu ba eh, ma dem ba jëmmi jamono gannaaw bi ma demee euh, en Europe euh, quatre ans mhm. dellu siwaat euh, Sénégal ma dégg ne école des arts ubbiwaat na parce que école des arts bu njëkk ba boobu moo doon génération ñoom Douta Seck ñoom euh, donc euh, Jacqueline Lemoine ñoom euh, donc aw Awa Sène Sarr ñoom mhm. Thiaba Ndiaye Marie-Christine Diatta catégorie boobu quoi ñoom grand Ismaïla Cissé pour ne citer que cela Mamadou Diop ñoom jigéen génération boobu bi ñu demee ba def quelques promotions dañ ko tëj tëj nañ ko presque vingt ans ou plus ah bi ma jógee France si ñu ne ma tijjiwaat nañ ko Euh, mu nekk une euh, école donc de formation académique du théâtre mhm. c'est-à-dire euh, donc art scénique yëpp ñu ko fay jàngale mais de façon professionnelle ah voilà su ma nee de façon professionnelle mooy li nga xam ne codifié nañ ko ci xam-xam ci wàllu théâtre te ñu koy jàngale ci àddina bi yëpp mhm. ak continent boo mën a dem et ma ne naa fa dugg donte ne sax xëy na dina xaw a yàgg dina metti mais ma dem def fa cinq ans j'ai fait cinq ans de formation académique à l'école des arts voilà génn diplômé mm-hmm. ah non non nag boo ci bëggee sori dalay jaral da lay mm-hmm. jaral ngay jàngee ba dugg université noonu laa aussi amee expérience dem euh, école des arts ben pour euh, donc renforcer donc suma expérience ce qui m'a amené donc à intégrer ce qu'on appelle l'université du théâtre mm-hmm. voilà parce que université ni mu mel ci mhm. njàng euh, traditionnel noonu la école des arts nest pas mel aussi euh, ci théâtre mhm. maanaam mooy université ji mooy daara ji ci gën a kawe d'accord donc ma def ko vraiment avec d'éminents professeurs professeur yu seen xam-xam màjj ci lool ci loolu ba ñu ràññee leen ci Sénégal mais aussi ci àdduna mhm. parce que xam nga boo ne Jean-Pierre Lers ne Mamadou Diop ne Mamadou Ndiéguène même des professeurs qui venaient aussi de l'étranger parce que ñun amoon nañu ay profs étrangers belges Euh, donc euh, anglais même des des des des coopérants allemands. sont mm-hmm. venus à l'école des arts et même des japonais. Mm-hmm. donc xam nga école des arts mooy yow dañuy renforcer sa culture générale. donc xeet bu nekk liggéey nañu ak moom ci technique de théâtre yi gën a varié. Mm-hmm. loolu moo tax tey jii et macha allah ñu am ci benn euh, donc expérience boo xam ne wax dëgg yàlla fépp fu ñu mën a dem ci àddina bu dee interprétation rek la. Euh, ñun maanaam euh, yeneen xeet yi maanaam tubaab yi ñun dañu leen sax di jaaxal ci wàll googu. nga leen di exactement parce que ñun dañu xam ñoom li ñu xam ba pare ñu am suñuy aada ak suñuy cosaanu bopp. Mhm. donc loolu sant yàlla la. Mhm. ba tax na tey jii eh, ñu ngi góorgóorlu ci ni ñu ko mënee. vraiment di jàppale xale yi ci suñu xam-xam biñ ci am ak as néew. Eh, en tout cas pour transmettre leen ko. bàyyee leen ko aussi. Mhm. ndax ñoom ñu mën a perpétuer les valeurs intrinsèques. nest pas professionnel et véritablement technique yi nga xam ne eh, eh, kuy def cinéma wala théâtre rek war nga ko xam. Mhm. waaw ñu ngi góor góorgóorlu daal lu ñu mën différence bi différence bi. bi. Euh, ci lan ci njëkk ak léegi ci solin bi. waaw maanaam bu njëkk ak léegi dafa am différence ci lépp loolu yemul ci parole yi waaw ci nit mhm. nit ñi. seen bopp ñoom ñoo soppeeku àddina moom mosut a soppeeku. c'est bu njëkk ba nit lépp lu mu naan def da ci daan boole fulla ak fayda boole ci yar boole ci aussi muñ ba la mu la nga xam ne moom lay sàkku ci xam-xam bés bu demee ba àgg ci fenn fii lenn mhm. dootu ko ci jaaxal mhm. waaye tey nag comme ni ni koy defee ci théâtre ak cinéma duñu bëgg a tey ñu dugg ci siiw ci tey am ci teraanga ci tey Euh, loolu nag xam nga dafay metti mm-hmm. voilà foofu balaa nga fay toll <laughs> mais dafay fekk aussi nga tarbiyu am na ñoo xam ne duñ ci xool duñ ci xool euh, xaalis ñoom nañu siiw rek monsieur Ndiaye monsieur Ndiaye dugal ma dama bëgg a siiw ñoom lañu siiw seen yoon nekku si est-ce que ñooñu tamit nekkuñu di yàq métier bi mais dañ koy yàq bu bari sax dañ koy yàq bu metti quoi et loo xam ne ñun daf ñu metti en tant que professionnel parce que métier boo gis da ngay ñaan yàlla jàng ci jàng ko mën ko mokkal ko ba pare tekki ci parce que loolu la métier di jël métier bu mën doon nag. Mhm. parce que tey jii boo duggoon ci wàllu maanaam paj. Mhm. Euh, mën ngaa tàmbale nekk infirmier mais da ngay ñaan yàlla ëllëg nga doon sage femme ou bien nga doon infirmier chef. Mhm. gannaaw ëllëg nga dem ba nekk médecin plein. donc loolu loolu la nekk ku nekk di ñaan ci métier donc art bi aussi boo ci duggee noonu ngay def. da ngay jàng métier bi njàng nag xam nga dafa bëri façon. parce que université bi gën a mag ci àddina mooy àddina bi bi ñuy dund àddina bi ñëpp nekk. Mhm. parce que xam-xam yëpp ak doomu aadama yëpp ñi ngi ci. yow boo amee volonté am patience su gëstu la nga ci bëgg mën mën nga ko caa mën. Mhm. théâtre bi aussi c'est la même chose bon donte na sax nit ki mën na bañ a def formation académique comme ñenn ñu ñi ñu amee chance def ko au Sénégal mais mën nga jaar ci ay troupe jaar ci ay compagnie jaar ci ay loxo ñoo xam ne seen xam-xam màjj na ci. ñooñu mm-hmm. euh, ñu tàggat la. wala nga jaar liggéey directement. liggéey directement mooy nga def euh, maanaam euh, formation pratique. Mm-hmm. formation pratique tey jii yow donte ne boo jaaru ci formation nga yàgg nekk ci troupe troupe bi di am ay production de scène troupe bi di am ay production cinéma yu ñu leen di soxla. Mm-hmm. nga nekk ci au fil des années. mais da boobu. accord c'est damay dégg aussi ñu naan la majeure partie si maison de production yi exception nag am na ñenn ñi du ñu jël ñi nga xamante ne ni ñoo def cinéma ñoo mën dañuy dem jël ñoo xam ne dañ leen a neex wala ñu jël des fois influenceurs yi nga xam ne dañuy yaakaar ne ñoom euh, feeñ nañ def nañ benn vidéo rek am nañ follower TikTok ñu baal ma ñenn ñi dañoo war a nekk ay artistes comédiens wala dañoo war a nekk ay acteurs. waaw loolu nga wax nag effectivement bokk na ci loo xam ne dafay yàq métier. Euh, da koy da koy da koy suufeel waaye itam da koy da koy ñàkkal solo waaw parce que euh, su fekkente yow da ngay def sa casting jëlal ñi nga xam ne mën nañu mm-hmm. boo jëlee ñi mën liggéey ba du jafe dana yomb waaye itam dana nekk liggéey bu kawe mm-hmm. mais comme cinéma ay règle am mm-hmm. dafa basé ci euh, disons sensibilité réalisateur bi sensibilité metteur en bi moom mën na gis nit sentir ko daan ne kii de moom laa sentir ci rôle bi mm-hmm. mais loolu euh, mën na nekk sax mais ci kaw nag kooku ñu coaché ko mm-hmm. parce que si tu prends par euh, par un pur hasard un acteur dont le profil euh, dont le charisme t'intéresse mais da nga koy guider aussi orienter ko encadrer ko avec les techniques mm-hmm. du cinéma ou du théâtre selon le besoin Mhm. c'est extrêmement important mais parce que yaa ma neex rek wala sama mbokk nga wala sama xarit nga mhm. wala dama la bëgg a doxaan mhm. ma jël la dugal <laughs> ci n'est pas bien préparé problème day am loolu voilà loolu œuvre bi lay wàññi valeur am parce que nit ñi dofuñu quoi li ñuy seetaan te soo ñëwee du tourner sax problème mun na am voilà wala wala c'est des c'est des navets d'accord ñu daal di ñëw euh, ci euh, côté personne ak personnage parce que suñu seetloo jamono ji ñu toll nii fit bi nga xamante ne nii sama bokk Even def nañ ko muy euh, mbete bi nga xamante ne nii dafa tukkal jamono ndax ñëpp nee nañ sumulu rôle bi nga xamante ne nii mi ngi koy incarné foofu tudd fa Marème ba daal di wax loo xam ne xaw na yëm tuuti ñeeño yi daal di saaga ñoom ñeeño yi nag daal di nañuy mer parce que ñeeño rafetlu wuñ ko benn yoon nga yaakaar loolu du personnage bi. waaw maanaam personnage mooy mbubb booy summi ñu solal la beneen pour nga ñëw incarné ko waaye mbubb gi ngay summi ñu solal la beneen yow tam boo koy incarné da ngay xool la nga xam ne boo ko defee nit ñi danañ la naw nga xool aussi li nga xam ne boo ko defee eh, nit ñi duñu yaakaar ne da leen di ŋàññ wala boog yenn nit ñi yaakaar ne da leen di ŋàññ xam nga lépp rek ci defin bi la mm-hmm. ak ci waxin bi parce que ñun aussi bu ñu nekkee ci Sénégal dafa nekk dëkk boo xam ne toujours ñun dañuy baaxoo di wax ci suñu cosaan ak suñu aada. Mm-hmm. ne wax dañ koy wodd. Mm-hmm. waaw boo ko woddee rek eh, mu neex a dégg maam dégg. dëgg la neex a nangu itam. waaw loolu tamit lu am solo la parce que mm-hmm. nit boo ko doon sexal tey ji lu wex da koy suukar mbaa nga lem ko. sinon du ko nangu naan donc loolu lu am solo la. donc ma ci woo vraiment créateurs yi mais aussi interprètes yi. ñuy bàyyi xel la ñuy wax ak nañ koy waxee. Mhm. parce que looloo waral ñu ne lu ne dañ koy jàng. ba mhm. mokkal ko door ko jëfe mhm. parce que booy wax ak askan. dafa am nooy wax ak askan wu ne. mën na am yenn kàddu yu ñuy wax yu xaw a ñegesi. bu doon dañ ko wax ci film euh, tubaab. wala ñuy wax ko ci film américain wala leneen ak leneen ñoom loolu dañ ko romb dañ ko dépassé. mais ñun ñii nag am na loo xam ne boo léegi dañu koy bañ. d'accord te itam xam nga benn waaso. nga nekk ci télé waaso woowu nga am kàddu yu ñeges yoo leen wax maanaam dañ ciy gis seen bopp. Mm-hmm. donc yooyu e jar na daal di bàyyi xel. xam nga tey suñ nee Sénégal du ma ne Sénégal rek àdduna lay wax mm-hmm. ndax mbirum ñeeñoo kii géer la kii géwal la fi lañ juddu fii lañ juddoo di mooy samay olof fii lañ ko fekk comprendre nga tey kon film boobu su dawee rek après kii di Soumboulou li parce que d'après ñi ko xam ne nañ moom jàng na théâtre mu daal di euh, jël benn kàddu bu euh, loo xam ne ñu bari saaga lañ ko jàppee mooy xaraamata Njaay ñu baal ma ci kàddu gi après dañuy daal di gis seen bopp ci koo xamante ne nii nee nañ def na communication parce que jaar na ci école théâtre yoo xamante ni xaw na mag d'après ñi ko wax ndax su indiwaatee loolu après ñeen ñooñu dañuy gis seen bopp parce que ñenn ñi tamit ne nañ faaw ngeen comprendre ko moo tax ma lay laaj personne ak personage est-ce que loolu garaaw na wala tamit artiste comédien bi dafa pare pour lépp ñu ko jox rek daf ko war a tourner. ah non non non lépp luñ la wax rek wa lépp luñ la def loolu rek nga def ko waaw war nga mën buñ la def loolee dara nga xalaat ci yow sa askan xalaat ci sa ëllëg waaye xalaat itam kàddu googu ndax du la topp ëllëg loolu lu jar sóoraale la. d'accord moo tax ñuy wax ne eh, booy njàng da nga maam loo xam ne dafa jëm ci communication foofu nga xam doole communication nga xam doole image nga xam doole euh, donc euh, écran hmm. parce que li nga ciy wax yëpp loolu la ñuy wax vaar quoi ëllëg da lay topp si waat donc am na solo trop hmm. nga jàng pas sax nga jàng rek communication hmm. mais nga xam impact communication ci doomu aadama mhm. xam impact communication ci euh, maanaam euh, askan mhm. xam ko aussi ci ñi nga xam ne ñoo lay déglu loolu am solo la parce que ñun fii ci Afrique pour ne pas dire Sénégal am na nu ñuy gisee kàddu gu ne am na nu ñuy gisee jëf ju ne mhm. bokkul ak bitim réew ñoom nañu koy déggee nañu koy gisee te loolu nag yow miy communiquer loolu war nga koo mën a xam c'est extrêmement important Euh, nee ñu wax euh, neex na mais dégg ko dàq. Mhm. voilà donc déggin googu la créateur bu ne acteur bu ne war a am nest pas ba lépp loo xam ne rek da koy wax askan wi da ko war a segg d'abord. Mhm. parce que dañuy wax ne am na loo war a wax nit ki ak loo mën a wax nit ñi. Mhm. xëy na yéen boo leen nekkee ci diggante ay nit yu miinante mën ngeen wax saaga def lépp du garaaw. mais boo ko bëggee wax mu jëm ci àddina nga xam ne yow tey jii réew mi yëpp. ñëpp dañuy toog di ko seetaan mm-hmm. kilifa yeeg xale yi wala eh, nit toog ak ay doomam di ko seetaan mm-hmm. da ngay loolu mm-hmm. ba tax na am na loo xam ne mën nga ko misaal mbaa nga wone ko waaye dafa am noo koy jàllalee ba nit ñi danañ ko nangu xam ne lii nga bëgg def waaye defee nga ko defin woo xam ne neex na ci déggin. d'accord loolu tam lu jëla bàyyi xel. nga yaakaar ne euh, est-ce que nekkul tamit ci scénariste yi des fois dañuy xaw a ci seen euh, bind bi parce que bind boo loolu nga xamante ne nii su ma wax na parce que des fois tamit dañ naan dañ lay bàyyi nga libre. dañ lay ñëw expliquer la bàjjen li ak lii ak lii lañ bëgg nga tourner nga daal di ci yokk leneen mais loo xamante ni comme li nga wax askan wi ak ñëpp ñoo ko war a dégg ce que après tamit du indi benn genre haine wala mu gën a indi haine entre géwal ñi Euh, géer ñi ak ñeeño yi aussi. Ah, bien sûr moom laa lay wax rek xam nga fii Sénégal sax booy seet xaw nañu sax dépassé ay indi ay barrières diggante géwél ak géer ak ñeeño yeeg parce que léegi ñoom ñëpp ñu ngi sëy. Mhm. soo xoolee léegi <laughs> génération bu bi ñu toll. mais ñeeñooy gis nañ seen bopp ah. nañ ko mais ah. ñeeñooy instant gisaat nañ seen bopp tamit. nag euh, ñi ngi koy dund ci kaw loo xam ne cosaan ak aada la Sénégal. Mhm. mais booy xool mais ñi ngi sëy ñi ngi sëy bu baax sa déer parce mhm. xale yi dem nañ ba xam ne. Eh, eh, booy xool lislaam amul waxuma sax l'islam mais dama ne mhm. eh, maanaam religion yi que mu nekk catholique yi que mu nekk jullit yi ñoom ñëpp seen religion mhm. mais dañu xam nga ñoo gën a kawe cosaan ak aada mhm. te ñoom dañoo dàq lool l'islam dafa dàq yow doomu aadama bu mu mel ni yow di sa nawle nga di ko xeeb loolu l'islam da ko dàq chrétiens yi dañ ko dàq donc loolu warul nekk loo xam ne nit ki da nga koy jël di ko dekkilaat ci anam boo xam ne dafa ñaaw. Mhm. mais ñu ngi koy indiwaat parce que bindaat nañ ko série. waaw sumru li mu wax ni yëngal na ñeeñooy yi ñu gis seen bopp Baabel Baabel voilà Baabel affaire waaso daf ci nekk. Mhm. mais ñoom dañ ko rafetal. Mhm. ba tax na déggoo kenn mu ŋàññi ko. keneen aussi bu ko defee xam na mu koy defee. mën na bañ a scandaliser nit ñi. donc moom laay wax rek il faut que scénariste yi et ak interprète yi aussi euh, ñuy bàyyi xel ci défin wi. loolu am solo la. moom laa la wax xam nga loolu euh, bu ñu ko defoon mu jàll ci beneen réew du am benn problème mm-hmm. mais Sénégal dafa am nu ñu mel am nu ñuy gisee am nu ñuy déggee mm-hmm. am loo xam ne aussi boo ko waxee ci yenn anam yi dañ ci gis seen bopp mm-hmm. mais loolu donc mën na ñàkk d'accord waaw pour te donner des exemples d'accord d'accord ñu idool ko pendant cinq ans mais ñu ci ŋàññi nit ci anam yooyu. d'accord te pourtant sujet yëpp abordé nañ ko ci daal kàddu yi. maanaam ñu koy jottali jottalin boo xam ne nit ñi hmm. maanaam duñ duñ duñ ci duñ ci gis lu ñaaw waaw duñu du ñu sentir ne ñoom la ñu visé xam nga nit mën nga wax dara nit ki koy dégg xam ne li nga wax lu am la lu nekk la hmm. mais du sentir na yow da ko visé d'accord parce que waaso ci boppam moo doy waan hmm. waaw boo nee waaso wi saaga rek saaga nga waaso bi yëpp donc waxin la Mm-hmm. waxin la daal d'accord en tant que acteur comédien su munu tey loolu mu def noo ko gisee garaawal nga ko wala garaawloo ko personnage boo xam ne daf koy joué la parce que suñu delloo euh, ci bi nga xamante ne ni moom la joué woon Lalia Sénégal yëpp yërëm ko ak Cheikhouna lim ko doon ko def ku nekk di jooy ndax sumbulu tey sumbulu ñëw na dugg na bete bete nekk na mareem personnage gars yi di ko saaga fàtte nañ Lalia yow nga xamante ni da nga ko jàng macha allah maîtriser ko am ci say diplôme nan nga ko gisee ak lan nga ciy wax non mais pour man peut benn moment de buzz la rek bon est ce que sax ñoom defuñu ko exprès pour nit ñi coow ci parce que am na ñoo xam ne ñoom coow li ñuy wut ah, ak ñu koy wutee nag mais moi je dis ko quoi. Mm-hmm. bon mais moom en tant que actrice en tant que comédienne bon elle est très bien elle a de très bonnes dispositions vraiment mel na nii actrice wala mel donc man dama koy féliciter dama koy encourager euh, mais je me dis que am na am na daal yoon yoo xam ne jarta jël. Mm-hmm. waaw ci maanaam yenn yenn yenn yenn environnement yi. Mm-hmm. voilà parce que jaru ko quoi parce que nit ñi daal bu ñu lay ŋàbb nañ la ŋàbb ci loo xam ne. Mm-hmm. dañ naan kii daal li muy liggéey mën na ko. rafet na neex na baax na parce que looloo ngi fi. cinéma ak théâtre dégg nga ba tàyyi ñu ne neex na rafet na baax na kii mën na métier mais nag ñu lay ŋàbb ndax kàddu gu ñaaw yow war nga ko mën a sóoraale ba euh, donc euh, mu bañ laa dab daal. d'accord voilà defe naa lool daal mooy li gën. d'accord est-ce que théâtre dañ cee wala xool buzz waruñu cee jàngale que ñu ciy ut buzz. waaw mais justement c'est que ñun bu njëkk ba temps jamonoy tey daaray ko ci dañ daan wax théâtre éducatif théâtre boo xam ne day jàngale di xamle di yéete loolu moom lañ fi fekkun mhm. man de ci loolu dinga am laa ci keppaar googu laa màggee. d'accord moo tax ba léegi man suma théâtre bu nekkul théâtre de sensibilisation d'éducation Euh, donc euh, du ma ci yëg suma bopp daal. moo tax man je me suis très bien senti dans la série Idole. ak yeneen yu mel noonu. vraiment yëg naa ci sama bopp nit ñi intéressé na leen am na buzz mais jaaruñu woon ci yenn yi daal. voilà donc gars yi il faut ñu xoolaat ni ñuy def. Mhm. ce pas buzz bi daal nekk loo xam ne day nekk qualité. Mhm. lu nit ñi maanaam euh, gërëm loo xam ne nit ñi dañ dañ koy féliciter. loo xam ne nit ñi dañ ciy gis seen bopp parce que en fait euh, œuvre artistique euh, disons dafa nekk un message euh, ambassade. Mm-hmm. message boobu askan wi dañ ci war a am fierté dañ ci war a gis seen bopp dañ ko war a naw ba nga xam ne eh, félicitation rek lañ ci war a mën a dégg daal loolu mooy objectif bi. d'accord mais nit ñi naan accam. Euh, je pense que du du lu gën daal. du lu rafet du lu du lu rafet nit ki mën na mën mën nga am bës daal te doo def doo wax doo def lu ñaaw. d'accord damay dégg tamit ñu bari dañ naan rôle suñ la ko joxee rek ba nga génn ñu la ciy ngañ xamal ne loolu jàll na su jàllul woon kenn du la ci ngañ wala kenn du ci coow. non xam nga loolu boo ko déggee que exemple ma jox benn exemple ñu ne kii dafa war a nekk ni ku soxla ni ku bon dafa war a war a métital euh, nawle doomu aadamam. moo xam doom la moo xam xaritam moo xam keneen maanaam ci defin woowu di nga sonnal nit ki def ko lu bon métital ko ba nit ñi seetaan ñoom dañu la ciy bañ pour ma jox la un exemple rek par exemple série Dallas xam nga ñu bari dañuy dem ba gëm ne JR dafa soxor fekk JR ku baax la ku teey la ku laabiir la donc ci anam googu mhm. euh, bu ñu la ci bañee ça veut dire que donc yow dañu la bañ ci sa kaw talent mhm. voilà mais bañuñu la ci kaw maanaam nga ñàkk jouer jouer bu rafet. Mhm. voilà donc dafa dafa am dafa am différence. d'accord voilà bañ la ci yow ni nga incarner sa rôle. Mhm. ba ñu jàppee la nit ku bon. Mhm. alors que Euh, donc. Euh, mais xam nga suñ suñu réew suñu réew moom. dañ koy def dëggantaan yaay. waaw dañ koy yëg dañ amat mii li mu suyee amat la déedéet moom la. ñu fexe ba xam ne ndeysaan kan mooy diw. mi ngi noonu mi ngi noonu. voilà loolu yëg-yëg bi la. macha allah xam nga dañuy wax ne rek liy jóge ci xol ci xol lay dem. Mm-hmm. mais quand tu joues avec le cœur nga war a bon di nga ko def defin woo xam ne nit ñëpp dañuy jàpp ne yow da nga bon fekk yow da ngay interpréter rek. d' accord personne la ak euh, personnage. donc ça c' est dafa am différence vraiment a bien joué son rôle quoi. macha allah wax ji leer na nañ ñi laata ñuy tàggatoo du ñu dem benn yoon te waxuñu ci jamono ji ñu nii réew mi ni mu xawee sant loo sax laay wax <laughs> ndax loo ween ni sax kan lañ. Euh. voilà xaw na jaxasoo wàllum politique bi. ak mm. yi nga xamante ni aj nañ ko noo ko waaw mais xam nga jafe-jafe bu amee rek. Euh, am na ku ku ku jaaralewul mbir mi ci yoon àddina moom lépp loo gis bu jaaree ci yoon gedd euh, du ca am xunn du ca am werante du ca am ba tax na damay wax politiciens yi rek nañu delloo siwaat seen xel lépp lu ñuy def ñu teg ko ci yoon dans la mesure où ñun et am nañu ay ay ay loi am nañu ay règlement maanaam ay charte yoo xam ne dañ ko bind ñëpp war a cee tënku. Mhm. defe naa ne buñ ci tënkoo te rafetal ko nag. waaw parce que duñ na rek dañoo bind nangam nii lañ ko war a doxalee yow nga ñëw doxalee ko noo xam ne et eh, boo ko tegee doomu aadama yi dafay metti ci ñoom wala da leen di naqari mbaa leen li gaañ. Mhm. parce que loi nag esprit bi mooy lan mooy da nga ko war a def pour société bi jaar ci yoon. Mhm. ñi nga xam ne dañuy def naka sudul noonu. Eh, ñu ñu ñu ñu yar leen wala ñu yedd leen. Mm-hmm. waaye ñi nga xam ne itam dañuy def defin wu ñoŋ defin wu baax defin wu jëmale askan bi kanam e ñooñu vraiment donc ñu ñu sargal leen. Mm-hmm. àddina bi loolu rek moom moo fi am quoi. Mm-hmm. donc képp ku ci ku mu mën a doon. moo xam yow politicien nga moo xam yow nitu diine nga moo xam nit ku siiw nga moo xam borom daraja nga. et lépp looy def rek jiital ci sa borom. xanaa lu am solo la. parce que xëccoo xëccoo bi ñuy soxla xëccoo yëpp mais yàlla rek moo fi ne. Mhm. yàlla fal na ki muy fal bu yàgg donc nañ ko rafetal rek mhm. nañ ko rafetal euh, teg ko ci yoon vraiment ba kenn du ŋàññi kenn mhm. wala kenn ëllëg eh, doo xool sa morom wala nga xool askan wi di sëgg parce que defe naa loi yi ak règlement yi eh, vraiment defar nañ ko defin woo xamante ne buñ ko jaaralee ci yoon rek wax dëgg yàlla xunn du am fenn quoi d'accord voilà rafet na lool <laughs> su ko defee ñu bàyyi la nga wax sa ay dernier mot daal di tàggatoo waale waaw bon dernier mot bi damay ta waaw am enfin renouveler en tout cas sama cofeel ci suma waa kër samay samay samay mag samay rak ñi nekk ci dëkk bi ak ñi nekk ci bitim réew ak sumay xarit waa Grand Dakar bi ñu bokkal askan mais aussi corps professionnel yi nga xam ne maa ngi liggéey ak ñoom comme la santé parce que man dama nekk euh, euh, euh, le coordonnateur des commissaires aux comptes de santé de Grand Dakar ñu fay liggéey liggéey bu rafet bu bu amal askan wi njëriñ avec donc comité de développement sanitaire mm-hmm. boo xam ne ku ñuy wax Lamine Sall moo ko mu nekk xale bu yaru xale bu am jom vraiment te itam ànd ak xam-xam ci li muy def parce que dafa jox ñëpp euh, da loxo ñuy liggéey liggéey bu rafet ndax centre de santé boo fekkoon doonul woon dara tey jii plateau médical bi euh, da nga am ñoŋ ba xaw a mel ni sax hôpital kon ça veut nit ñi ko yore woon euh, saax saaxee wu ñu xaalis bi fay jaar mm-hmm. foowee wuñ ko te it lu jëmale seen askan kanam soxal na leen mm-hmm. donc maay remercier le comité de développement sanitaire de Grand Dakar mais aussi euh, les, les acteurs de santé hein, au niveau du district centre notamment relais communautaire yi nga xam ne eh, ñu ngi fay liggéey technicien mm-hmm. de santé le médecin chef et l'ensemble de son personnel mais aussi euh, le réseau des acteurs de santé communautaire yi nga xam ne eh, man ak Ibrahima Niang sama jumeau ñoo fa nekk di fa liggéeyal askan wi di ànd ak da nga maam technicien de santé euh, ñuy jàppale askan wi ci wàllu wér-gu-yaram di ko def également à un niveau même régional. Mm-hmm. avec le ROCBAC. dañuy mm-hmm. liggéey ñun ñëpp dajaloo tënku àndandoo ak technicien de santé yi di leen jàppale ci lu jëmale askan wi kanam ci wàllu wér-gu-yaram. Mm-hmm. voilà ak ñeneen surtout les délégués de quartier waaw maa ngi leen di nuyu ah. <laughs> je pense le président des délégués de quartier de la commune de Grand Dakar. ma nekk vice président defe naa moom su ma ko limee rek lim naa délégué. lim nga ñëpp Dakar yëpp macha allah bëggee ñëpp di jaajëfal ñëpp surtout yéen ah di leen jaajëfal Mbadiane <laughs> ah, voilà ak univers. Euh, info <laughs> info waaw Amath. Mhm. Euh, seen technicien bi. waaye di leen jaajëfal di leen mhm. ñaanal e ngeen yokk dégg ba yëg ko. amiin amiin ah, et euh, bi aussi jëm kanam. amiin vraiment Sénégal. àdduna yëpp sax jox ko bopp. incha allah amiin voilà di jaajëfal Sénégal ak ñëpp. Mhm. ñaan yàlla daal ci jàmm. ci réew mm-hmm. mi mm-hmm. yàlla na yàlla defal jàmm jàmm ji nag ku nekk rek li nga yéene sa bopp nga yéene ko sa morom moo koy indi waaw Sénégal jëm kanam jërëjëf Ba itam maa ngi lay ziare di la di ñaan yàlla bàyyi la fi nga dund ba njabar geeg lépp fekke lépp ci barke Seydina Mouhamed di leen jox a rendez-vous ba ñeen yoon ngeen àndoon ak Univers Info TV jërë ngeen jëf merci beaucoup.